dal ak jàmm ci seen rubrique tey nag doxantu nañ ci benn bërëb boo xamante ni bokk na ci liy màggal art sénégalaise ñu gën ko xamee rek ci village des arts village des arts nek na ben vitrine culturelle bu Sénégal mu ngi nek nak ci Dakar boy dem sa aéroport international Le port Sédar Senghor diggante stade port Sédar Senghor ak pont Cissé bi bërëb boobu nag dinañ fa fekk lu toll ci juróom fukk ak ñaari atelier da nga xamante discipline artistique yépp dinañ ko fa fekk muy doon peinture sculpture céramique photographie vidéo installation ak yeneen yu nu mel ci noonu sax la Mamadou Wade di tapissier ak peintre bokk tamit ci mag village bi di ñu fàttali naka la village bi juddoo. ñu amoon ay doléances yu ñu doon def souvent bu ñu amee manifestation culturelle avec l'état di solliciter l'état pour que mu jàppale ñu ci noonu nag benn ci suñu manifestation yi tombeek la visite de Abdou Diouf et que le village était disponible parce que nous ñoo fi nekkoon doon liggéey stade bi stade bi pare ñu waaj demandé dem ñu demander état bi pour pour ñu jox ñu fii. mu nga ñuy xamal ni que ni village bi école de formation te nous ñu fa jël dinañ atelier ngir activités. les artistes ont fait leur demande réglementée parce que demande aussi c'est une commission commission moo koy doon que bu ñu demande ba xam mi mérité am atelier ñu jox la atelier am vit la Nous parce que du juste am am la ñu bëri daañu mën jaar. ñu doxantoo ba ci kanam ci beneen atelier dañu fa fekk Moussa Ndiaye mom tamit nek pensionnaire ci village bi mu ngi ñuy xamal rek mom ci lan lay yëngu. c'est du collage quoi après technique ça s'appelle collage souvent comme bii léeg le ma liggéey ci wax man tan ya a de collage peinture kese la quoi. si souvent ma varié ko travail sur la nuit des jours les soleils comme technique pour classer la jour quoi ya a couleur quoi c'est des fond noir comme le dit quoi on y dit comme bu mel ni lu mission quoi mel nuage souvent ma liggéey sur la soleil aussi la temps Tambouya bi comme les Tambouya quoi avec les tuiles Tambouya. bu ñu demee tamit ci côté galerie bi dinañ fa fekk Mamadou Ndiaye nga xam ne moo yor lépp lu jëm ci wàll boobu dañu xamal itam naka lay def ba ñoŋal liggéeyu artistes yi. présentement jamono ji nag euh, lu ëpp at euh, mu ngi nii maa ngi ci village des arts man maay gérer li nga xamante ni moo di galerie bi chaque jour rek ma ci jéem a indi ay euh, yoo xamante ni da koy gën taaral rek di ko gën rafetal bu ngeen ñëwee nag di ngeen ma fekk fii ci galerie bi nga xamante dama ko bëgg tàmmal ko sama bopp ndax espace bi bi si nekk ak yooyu yëpp te nag ba may door fii dama doon wax ni mën nañoo def espace bi espace bi gën rafet eh, ci àdduna bi ndax talent artistique yi nga xamante ni nag eh, am na ci bile village artisanal ci noonu nag village bi am na ay problème yu rëy ba nga xamante ni Mamadou Wade mi ngi ñaax nguur gi ñu wàllu leen si nguur gi xam ñu mënoon a jàppale d'abord ci matériel bi matériel bi cher na sol jàppale ñu it ci bi yenn saa dañuy am ay tolof tolof que dañ ñuy invité moroomi artistes yi di nekk à l'étranger dañ ñuy invité à une manifestation culturelle day wax ni la léegi on te prend en charge partir de ce pays loolu léegi billet yow sa billet yaa koy toppatoo ko defee nga ñaan ministère yenn saay yi mu jox la yenn saay yi du la jox. waaye bu loolu yëpp weesoo village des arts nekk na benn bërëb bu calme bu dal boo xamante nii képp ko fa dem mën nga sotti ay xalaat yu mucc ayib actualité culturelle liggéeyub esplanade du musée des civilisations noires dal dinañ ko taxawal niki altina qui est teewoon secrétaire général du ministère de la culture muy Biragna, et ak conseiller économique de ambassade de Chine Fils Sénégal muy Louis Feng. L'équipe boobu nag nga xam ne xayma nañ ko ci lu toll ci ñetti weer moom rek moo tere yemb boobu la musée nga xam le ci waykat bi di France Gal moom tamit daal dina génn àdduna nga xam ne que ni xamee nañ ko si ay wayam yu neex ak ni mu soppe woon lool Sénégal génn na àdduna niki dimanche mi ngi tolloon si juróom ñaar fukk ak France Gal nag génn na way yu bari ba nga xam ne biñ ci gënoon xam nekk na Babacar waaye cofeelam ci Sénégal moom lu ñëpp xamoon la ñu ñëw nag si seen agenda culturel ci raw ciné club dina fa projeté film bi di félicité niki ajuma bu 17h30 jotee jàpp 20h30 ca àllarba débat bi nag Yass et les Dof du Rire ñoom tamit dina nekk sur seen face à institut français Léopold Sédar Senghor bu 21h jotee jëm ba li h nag mooy ndar keppe seen rubrique culturelle di leen jox dig daje beneen alxamis.